dund alalu yàlla la dund yàlla moo ko moom dund yàlla moo koy maye sama dund ci yàlla la jóge sama dund bés ci yàlla lay dellu ñi ngi ñaawlu lool chaque fois ay nit di boom dund gi di gaañ dund gi wala di def dund gi noo xam ni du noonu ñi dem ci gaal gi itam doon na lu métti ci ñun ay xale yu ndaw ju du démb yaakaar ni fee moo gën fii

li ngay wax boole ci yàlla li ngay dugg boole ci yàlla. bàyyi wax gu ñaaw gi ñu bàyyi di teg suñu kopp suñu kaw morom lu mel ni xeme waaye képp ku nekk na nga xam li ngay wax na nga xam fooy dugg na nga xam isam looy def de ni ci li ñuy wax ci li ñuy def ci li ñuy dund ak ci li ñu doon ñu maytu loo xam ni du defar réew mi ñu maytu loo xam ni du tabax jàmm. parce que Djam, les poules nous ko Djam rek parce que Djam amul ndek yalla nañu yalla may ñuy wax lu baax di gis lu baax di dox lu baax te di séri lu baax. Noël euh, est la fête par excellence de la vie. La fête de la vie qui invite au respect de la vie le respect de la vie et la promotion de la vie sous toutes ses formes. Aujourd'hui, vous comme moi, nous avons mal quand la vie est blessée. Et tout à l'heure, au travers de notre prédication, nous avions invité à beaucoup plus de respect pour la vie. Nous avons également évoqué avec beaucoup d'émotion la problématique de l'émigration. Nous avons pensé dans notre prière à tous ces jeunes Sénégalais qui tentent l'aventure et dont la Méditerranée est devenue pour beaucoup le cimetière. Cela nous touche, cela nous interpelle et nous invitons tous ceux et celles avec eux, tous les ayants droit, à essayer de faire tout ce qui est en leur pouvoir pour trouver une solution. Nous avons également demandé au Dieu de la paix de donner la paix au Sénégal dans la perspective de l'élection présidentielle du mois de février. Nous avons également parlé de la médisance en invitant tous nos compatriotes à savoir raison garder et à faire preuve de retenue.